bukki moom mooy seen. ñoq lii yëpp bukkuntaa ma ko yóbbee lii yëpp yow yaa ma ko yóbbee mu ngi ma bàyyi ma tëdd sama kër ndax dama feebar ma mami ngi nii di ma traversé. amul benn problème dara jotul la da ngaa soj soj du feebar. yaxajal ivoirien noonu ñu baax. dem soj du feebar dama lay wax rek. bu hmm. na nga liggéey si. bu ko def prétexte pour bañ a xëy na nga xëy. na nga xëy subaa jàmm incha allahu rabbi na bu tawee sax ngeen seen kër yi naan non dafa taw aw fu fu yoon jaar luy loolu. nit ñi muy taw nit ñi di xuus ci taw yi di dem di liggéey. time is morning. Hmm. ok you understand. très bien parti démocratique sénégalais. <laughs> li ci jiitu mën nañ ko jàngat ci wàllum politique je disais tout à l'heure que euh, PDS dëgg la yàgg nañu ci politique xam nañu taarixu politique nu mu mel c'est des gens qui sont assez expérimentés mais faut dire que au Sénégal. Mm-hmm. musuma fàttaliku fu enquête parlementaire amee jëmale. ci ay juge rawatina conseil constitutionnel c'est la première fois que ça se produit maintenant ce qui est étonnant c'est que une fois que l'annonce a été faite les dossiers a été vite enroulé ñu ne den waaye ñu ne dañ ci war a statuer tey mais dans la pratique même de la chose jàngat gi mooy ba du nga gis ñaari parti politique yu war a féewaloo à la limite yu àndandoo mooy ak parti au pouvoir parti au pouvoir qui je le rappelle a un candidat qui est quand même passé conseil constitutionnel bloqué wul le passage de Amadou Ba Amadou Ba est passé maintenant moi mon problème c'est qu'est-ce que le parti au pouvoir gagnerait à soutenir le parti démocratique sénégalais ci procédure bu ni mel lan lañ ci gagné bu fekkente ne PDS parti opposition la ñoom ñu nekk parti au pouvoir te ñoom seen candidat jàll na donc soutien bi nga xamante ne PDS war na koo mën a compter ci ñoom dama am problème compréhension quoi man lan moo tax euh, soutien boobu ñoom ñu war a mën a compter sur eux pour que cette enquête parlementaire puisse être faite beneen bi ci topp mooy juridiquement parlant c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer Nabou mm-hmm. ce matin en venant je me disais. mais comment on peut reprocher à un leader politique qui s'appelle Ousmane Sonko ne ko tu es quelqu'un qui ne respecte pas les institutions joxoo cër juge ak magistrat yi nekk ci dëkk bi te pourtant Ousmane Sonko musul yóbbu kenn enquête parlementaire de pour ñu ubbi ak euh, désigner euh, peut-être euh, du doigt de manière assez distincte li nga xamante ne moom mooy procédure bi xew nii ci wàllu conseil constitutionnel pourquoi Ousmane son qui au même titre que Karim Wade a été recalé ci li nga xamante ne moom moo jëm ci décision au conseil constitutionnel n'a pas attaqué le conseil constitutionnel pourquoi c'est le PDS qui le fait ah parce que c'est la personne de Karim Wade ok maintenant Karim Wade wax naa leen fii ne leen moom ñàkk bokkam ci ay élections présidentielles fii ci Sénégal en quoi est-ce que la war a mën a nekk prétexte pour que ñu bëgg a reporter élection yi yéen nag neexu leen waxtaan ndax da ngeen di mel ni ay muwet dama damay bëgg ku may wax ni ngeen may tontu. waaw non parce que xam nga luy sama problème nabu Cor. mooy ne il faut qu'on se respecte se respecter mooy mënuñu clamer une chose ne dañuy dénoncer le fait que dafa am leader yoo xamante ne respecté wuñu les institutions et en même temps ñuy dem ay pratiques yoo xamante ne on se voit ou on voit un parti pointer du doigt ay sept sages du conseil constitutionnel mm-hmm. ba ay plainte ak lépp am ci diggante bi te loolu lépp li ko waral mooy ouverture d'une enquête parlementaire pour un candidat qui s'appelle Karim Wade c'est ça mon problème pour man wax dëgg yàlla on ne peut pas vouloir une chose et son contraire on ne peut pas vouloir le beurre l'argent du beurre et la crémière on est d'accord donc dafa am loo xamante pour man logique la ce qui est en train de se passer les gens pensent que c'est léger mais ça n'a absolument rien de léger man dama jàpp ne c'est des actes qui jusqu'à désigner ou pointer du doigt euh, l'attitude des sept sage euh, et dem ba ci ubbi enquête parlementaire c'est-à-dire que yow aujourd'hui dafa am foo xamante ne bu ñu ci góorgóorluwul tuuti ci effondrement boobu la ñu jëm mooy l'effondrement des institutions fortes mhm. te dans un pays quand on dit que la justice est rendue au nom du peuple mhm. c'est que la justice est porte-étendard de ce qui se passe dans un pays mënuñu mënuñu nasaxal yoon musu mënuñu néewal doole yoon et le plus extraordinaire mooy ñi nga xamante ne ñun dañu doon toog di dénoncer naan le Sénégalais ne se retrouve plus par rapport à sa propre justice c'est nous-mêmes aujourd'hui qui sommes en train même de défendre la justice par rapport à une position boo xamante ne jàpp nañ ne mën na indil guuta réew mi mhm. xaw ma ndax yéen a ngi may dégg bu baax may dégg bu baax a baax a baax ça m'a fait tout drôle de voir quelqu'un par exemple comme Pape Alé Niang muy wax des vérités comme ça koo xamante ne il a été victime des décisions judiciaires mhm. jàpp nañ ko fi tëj dañ ko fi te pourtant jàpp na ne lii nga xamante ne ci la ñu jëm nii baaxul cim réew baaxul pour la toute bonne et simple raison que la séparation de pouvoir est une réalité dans un état de droit le législatif ne peut pas être au-dessus de l'exécutif maintenant qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ce sont les députés qui vont juger aujourd'hui la pertinence ou pas d'un magistrat est-ce que député am na maqaama boobu et bu ñu ko xësee ba enrôler est-ce que na am temps wu machine bi mën a exécuter li mu war a exécuter fii la ñuy jublu ci ay élections su fekkente ne la finalité de tout cela si j'utilise le conditionnel la finalité de tout cela est qu'on reporte les élections. Mm-hmm. c'est que c'est peine perdue parce que pour man bu amee ñuy ñuy reporter élection xëy na ñoom ñaari parti yi ñoo ci mën a tiire profit bi ci njëkk mooy parti démocratique sénégalais pour que mu am temps wu jekkas ndiku ma am temps wu organiser waat mën a yenn bataille judiciaire yi mën ne mm-hmm. même yenn bataille politique yi pour que bu ñu jàppaatee xëy na datu scrutin day fekk période boobu ñu pare mais ñoom bu ñu fàtte ne l'action qu'a posée Karim Wade Et ce que le Conseil constitutionnel a décidé, l'action est antérieure par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. mooy ne Karim Wade moom. Mhm. ba muy taxaw di prêter serment di wax ni moom il a perdu sa nationalité et que deux jours avant que la décision du Conseil constitutionnel ne tombe on apprenne que période boobu la perte nationalité est-ce que kon PDS Conseil constitutionnel la amal problème. wala candidat Karim Wade la amal problème en mhm. vérité. Et pourquoi cette terreur de Karim Wade? C'est le peuple sénégalais qui doit en payer les causes. Mmh. problème wala je réfléchis trop Karim mi nga xamante ne musul teewal Sénégal musuñoo kaasal. Mm-hmm. musuñoo jooyal musuñoo jàmbatal ba fii ñu toll il fonctionne avec nous par le biais des réseaux sociaux loolu la séq ak ñun Twitter. machin pour faire passer sa communication le gars n'est toujours pas venu au Sénégal il n'est pas là. et puis li mu tweeté est-ce que na depuis ñu yóbbu ko foofu ba léegi. parce que maa ngi dellu keroog information pas 4 8 la doog a def pour wax ak les sénégalais. mooy lan moo ko jëlee Sénégal yóbbu ko euh, fële ca Qatar au moins fële mu toog ca Qatar mënoon nañu wax lan moo ko fa yóbbu rek. ma ne ñoom ils ont raté leur combat dès le mm-hmm. départ le parti mm-hmm. démocratique savoir la vérité. Mm-hmm. en vérité quand tu choisis un candidat tu dois t'assurer que candidat bi am na lépp lu mu war a am pour mën a jàll ndagam ki matal lépp war a jàll la ñu ko jàlloo. parce que da nga am décision boo xamante ne ci wàllu diffamation yeneen yu ci topp moo ci am mu nangu loolu accepter ko wanaasu li nga xamante ne moom la namoon a def ci réew mi yëpp. jiital keneen koo xam ne xëy na peut-être euh, nekk na un de ses collaborateurs pourquoi le parti démocratique sénégalais n'a pas été ingénieux pourquoi parti démocratique sénégalais sans Karim Wade le PDS ne doit plus exister je ne comprends pas comment un candidat comme ça peut agir d'une telle sorte et que après ñu bëgg parce que moom bokkul ñu na nasaxal réew mi loolu mënul nekk c'est pas possible ils ont réussi un coup de maître c'est que ça je le disais depuis le début ci li nga xam ne moom mooy le fait de vouloir déposer une enquête parlementaire passer par le biais de l'Assemblée nationale oui mais moi pour moi c'était dans le sens de ñu apporter ay amendement pour qu'à l'avenir bu ñuy organiser yeneen élection que ñu mën a taxawaat vraiment statuer ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, processus électoral bi ni mu war a tëddee ba ci xëy na ni ñuy defee ba mën a éliminer yenn candidats yi mu bañ a mën a amati à l'avenir parce que ce n'est pas la première fois et ça je le leur mu am ay candidats yoo xamante ne dañuy aspirer à être président de la République mm-hmm. u bokk ci liste de départ bi et qu'à la dernière minute ñu éliminer leen loolu lu jar xeex la bu fekkente ne xeex bi foofu la ñu ko accès très bien mais pour que Karim Wade participe coûte que coûte à l' élection présidentielle jàpp naa ne la le conseil constitutionnel jël na décision ba pare. te une fois que jël na décision ba pare y' a pas de retour en arrière. maintenant qu'est-ce qui va se passer ce sont des députés qui vont juger des magistrats. le le président de la république wax na ko. oui ñu dellu si waat. Euh, li jaaxal ñëpp mooy ci biir assemblée bi ñoom daanaka dañu lëkkaloo bu baax ak euh, député yi nga xamante ne ñoo féete ci pouvoir bi wala ñoo ànd ak euh, parti au pouvoir. Mhm. tey lëkkaloo boobu noonu mu mu mu mu ci xelu ñu bari finalement ñu ne ndax dafa am ku nekk ci ginnaaw xew daanaka pour euh, peut-être nit ñi am xel ñaar ci ci conseil constitutionnel wala ñàkk a demu euh, Karim euh, finalement est-ce que du dañoo jàpp ne ci opposition bi am na ñoo xamante ne dañuy jéem a lëkkaloo conseil constitutionnel pour mën a fexe Karim Wade bañ dem ci élection yi. ndax ñu ci bëri seen xel mu ngi dem ci Amadou Ba naan peut-être moom la ñuy njort ne daanaka mooy lëkkaloog ñoom pour mën a tere euh, Karim Wade dem ci élection waaw parce que xam nga ñu bëri dañuy wax ne au sein de Benno Bokk Yaakaar en réalité Benno boobu ñuy wax c'est un semblant de nom. dafa am ay pro ak ay pro Amadou. oui en vérité dañuy wax ne euh, enfin si seen biir parti. Mhm. Euh, vraiment li ñu li ñu soxla ci wàllu cohésion yëpp pour ñu mën a dem ci ay élections ils ne l'ont pas. soo amuñu union boobu nga xam ne moom la ñu soxla mais encore une fois. c'est-à-dire que ñoom loolu bu ñu amee seen problème tamit ñoom loolu seen problème mu bopp le problème mu sénégalais yi seen yoon nekku ci mhm. mooy li ma lay wax sànq ne la kon le fait que aujourd'hui ñu bëgg taxawaat statuer sur euh, euh, li nga xamante ne moom mooy la transparence de ces sept juges là bu fekkente ne dañuy soulever idée de report à la limite kon ñoom ñaar lay lay lay lay lay lay gën a avantagé le parti démocratique sénégalais et le parti au pouvoir parce que mhm. fu kii réellement kon problème am na ñoom ci seen biir ils ont peut-être besoin de plus de temps pour peaufiner d'autres stratégies sauf que fu mu nekk nii problème bi du ñoom problème bi mooy askan wi moo leen mayee tout le temps benn deuxièmement mooy ne dans ce pays là dafa am loo xamante ne moo ñu tënk te ñun ñëpp dañ cee war a wéeru xam nga la Sénat même maa ngi liir ci benn yéenekaay ñuy wax ni. Mhm. Euh, wax nañu ne processus électoral bi décision wu sept sages yi jël nañu ko ci ni ñu ko war a jëlee. ni ñu ko jëlee. te mhm. nag Sénat aussi dafa bokk ci corps de contrôle yi nga xamante ne ñooy bàyyi gët ci li xam ne mooy organisation élection yi jamais au Sénégal on est arrivé à un stade où c'est un député qui juge un magistrat j'ai un problème mm -hmm. jamais au Sénégal pour man yegguñu foofu PDS mënoon na siggi nag ci lii mooy ne mu ne c'est la deuxième fois que xëy na am nañu candidat boo xam ne am nañu yaakaar bokk ci ay élections mhm. ñu éliminer leen maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir quand on organise des élections qu'il puisse y avoir ou en tout cas la participation de tout le monde sauf que bële mënoon nañu wax dañoo jéemoon ni pexe pour que Karim bañ a wàdd mais bii Karim moo jéem pexe bopp pour bañ a bokk ndax Karim moo dëppoowul ak yoon Karim moo ñu wax une chose ñu découvrir son contraire et les Sénégalais ont un problème aujourd'hui pour ñu mën a faire confiance à quelqu'un qui nous dit j'ai perdu ma nationalité et que à quelques jours de la validation finale du Conseil constitutionnel waa Paris génnee finalement benn benn benn note pour dire que perdre na nationalité à partir de ce moment donc pourquoi Karim Wade laa wax mi nga xamante ne wax dëgg yàlla amalul benn njëriñ sénégalais yi bokk ba ñàkk bokk wax dëgg yàlla ñun suñu yoon nekku ci kooku moo war a mën a tax aujourd'hui ñuy dem dans le sens de soulever benn idée de report parce que man jàpp naa ne wax ji yëpp mooy ne ñoom sax wax nañ ko parti démocratique sénégalais si si Karim Wade ne participe pas y aura pas d' élection wala dañuy reporter élection yi report élection du ko reporter by mm-hmm. the yi kenn du ko reporter élection yi dañ koy tenir à dat échue pour respecter le calendrier républicain effectivement mm. c'est tout aussi simple que ça mm-hmm. yéen a fi toogoon doon kaas naan ay nit waa xanaa kon yéen yen nag yéen yéen xadd kaaba gi nag ndax kii sax dafa toogoon di jiiñ yor yor caméra am jiiñ moom doon jiiñ rek waaye yéen moom yéen moom da ngeen dépassé jiiñ yéen da ngeen poser ay actions allant dans le sens de ñu war a mën a taxaw ba pare naan ñu la séparation des pouvoirs n'a rien à voir mais bien sûr que a un un député qui juge un magistrat xanaa moom dugg bu ñu paree dañ koy tabax dañ koy defal tribunal bu bees voilà dama am problème de. dimbali leen ma am na problème pour comprendre il faut pas que dans ce pays là qu'on laisse passer euh, ou euh, vraiment qu'on même même émette l'idée d'un report par rapport ak élection yi Karim Wade gënul benn candidat bu nekk ci réew mi tous ces candidats recalés là Karim Wade gënu leen te nangu nanu li nga xamante ne moom moo ci am même bu fekkente dañ ko nangu à contre-cœur def nañu ay actions ils ont interpellé le président de la République tout ça allant dans le sens d'être rétabli dans la vérité des faits mais si aujourd'hui ce qui se passe et actuellement ce que l'on constate c'est que le Parti démocratique sénégalais a l'air de vouloir déstabiliser vraiment tout ce pays-là parce que seen candidat bokkul là j'ai un problème surtout que c'est ne wax dëgg yàlla il pourquoi on va continuer de se battre pour sa participation et mm. encore moins éluder l'idée même de d'aller ci ay report report d'élection parce que pour les beaux yeux de Karim Wade je suis désolé mais non on a absolument <laughs> rien contre vous mais non su fekkee Benno aussi da ngeen am problème pour que ngeen juboo seen biir vous avez besoin de gagner du temps pour voir comment vous allez vous organiser vraiment je pense que loo xamante ne réussir ñu ko woon pendant des années parce que Amadou Ba c'est pas la première fois que mu nekk benn biir Benno Bokk Yaakaar yéen yéen a tànn waxoon seen président ne ko tànnal nu ko nu tànnal mooy suñu candidat tànnal na leen candidat na ñëpp respecter décision boobu bootu ci ginnaawam te comme lu ngeen seen bopp am ngeen bilan boo xamante ne foofu ngeen ko wéer pour mën a jàkkaarloo ak sénégalais yi dem ngeen ba ne da ngeen di doxal nice cool fine sénégalais yi continuer ne kontaan nañu ba continuité la ñu bëgg kon nag jàpp leen ci continuité bi rek ñu dem ci élection yi le 25 février bëgg bëre bëre bañ bëri bëre bëre c'est une question Badara. oui juste euh, vu euh, euh, soutien bi ñu am <laughs> côté pouvoir bi ah. euh, en plus à quelques jours du démarrage euh, des euh, comment dirais-je kii euh, euh, campagne bi surtout oui est-ce que ñoom am nañ beneen objectif bu ñu ci war a mën a viser bu dul report élection yi parce que man jàpp naa ni li des ci élection yi am li des surtout ci campagne bi est-ce que dara xaj na fi aussi. moom laay wax nii c'est-à-dire que même bu fekkente ne tey jàll nañu badu li nga xam ne moom mooy enquête parlementaire bi bu ñu xasee ba ba statuer ko tey. Mhm. on va bientôt démarrer normalement la campagne électorale. Mmh. partir de quel moment ñoom <laughs> la ñuy mën a toog di étudier dossier bi te du méngoo ak li nga xamante ne moom mooy élection yi nous sommes à quelques jours des élections est-ce qu'ils auront assez de temps pour pouvoir euh, ñu ñu ñu àtte mbir mi ni mel et puis moi dans la procédure xëy peut-être loolu on aura besoin de l'avis d'un constitutionnaliste. Mm-hmm. je vais voir mon ami Mamadou Sané mba xam ndax dinañ ko mën a am demain. Euh, au moins par téléphone qu'il nous explique parce que juridiquement man j'ai est-ce que assemblée nationale am nañu réellement pouvoir ci conseil constitutionnel ça aussi c'est une grande question Euh, su ma juumalee gis naa njëkk si laa ce matin. mu ni une mu ne euh, euh, assemblée nationale amul prérogative bu saytu conseil constitutionnel. ah ça m'aurait étonné le contraire m'aurait étonné. Mm-hmm. parce que c'est deux pouvoirs distincts. même El Hadj Omar assemblée nationale amul benn prérogative pour enquêter ci li nga xamante ne moom mooy décision conseil constitutionnel. voilà super donc je retire ça du du njëkk c'est El Hadj Omar. Mm-hmm. mais parce que moi ça m'aurait étonné sincèrement c'est deux pouvoirs distincts. distinctes yoo xamante ne bokkuñu quoi am nañu mhm. lien bu ñu xaw a am peut-être certes mais je vois mal un député jugé un magistrat quoi je veux dire euh, c'est dans l'entendement humain à la limite c'est même euh, presque impossible laa yaakaar xëy na kon lu ñu mën a def mooy def ay stratégie politique pour comme je dis ñu mën a reporter élection yi ou PDS bokk li nga xamante ne moom la bëgg nam ko def mooy élection yi ñu bañ ko tenir à date échue alors que ces élections là ñoom li décision bi am ci ñoom dañu koo waral nangu et PDS ñoom seen problème mooy nañu fexe ba xam ni bu fekkente ne bëgg nañ seen parti bi continuer di dundu di am souffle d'air nañu wut yeneen candidat yu wute Karim mm-hmm. yaa ngi dégg wala ñoom seen parti boobu moom dictature moo fay dox ah. bu dul keneen luy loolu Karim ay temps booy fàttaliku bi muy door a dugg ci wàllum politique dafa créé woon parti boppam ils ne s'étaient pas complètement fondus dans le Parti démocratique sénégalais parce que biir Parti démocratique sénégalais il y avait des gens qui étaient des wadistes mais qui n'étaient pas karimistes ñoom dañoo tuddee woon seen bopp sax les karimistes justement mm-hmm. parce que pour faire la distinction des choses Parti démocratique sénégalais jàpp naa ne parti bu yàgg la traditionnellement parlant euh, c'est même peut-être même inconcevable ñu normalement dans la normalité des choses waruñoo organiser élection yu perte Parti démocratique sénégalais bokkul mais nag ils n'ont pas su mener le combat quand il fallait le faire mm-hmm. à la limite ils ont prêté le flanc ci période bi nga xamante ne dem nañu ci dialogue bii leneen li ci topp jàll mooy finalement euh, euh, autorisation bi ñaari cas yi am pour ñu mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy élection yi yooyu yëpp nag c'est des tentatives politique yoo xam ne mais politique dafa am fu mu yem politique bu bëggee yegg bay franchir barrière judiciaire y a un problème Et encore une fois, je répète cette phrase. La justice est rendue au nom du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, Karim Wade, il a l'étoffe solide pour les Sénégalais ba ñu war a mën a jàpp ne bu ñu dee changé wala nu toxal ay élection pour jëmmam moom daf koo jaral peuple bi